اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأصنع خدمه ومن والاه mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ndokkeel bokki jullit yëpp ci weeru ramadan mubarak bii ñu génn di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem góorgóorlu lu ñu ci doon def yëpp te laqal ñu ko fi yàq yëgut jéggal ñu rëcc rëcc yeeg mboolem njuumte yeeg yiñ ci def yëpp rek te muy ay safaan te mu wuutalal ñu ko dafa soppil ñu ko ay yiw damay ñu fekk waat ko di bari lool te ànd ak wér tal di ndokkeelaat itam bokki taalibe yi murid yëpp ci jamono ju baax ju tedd ju am solo ji ñu toll te xam nañ ne saa yuñ ci tollee xelu murid yu bare bare bare bare rawat na ñi ko xam dana dellu ci ab xew-xew bu xewoon te mooy xaamis shawal te mooy bis bi nga xam ne Serigne Touba Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wa arda ci la njëkk a feeñal wirdu wu màgg wu tedd wu barkeel woowu nga xam ne moom la jëlee ci borom tabaraka wa taala mu jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo indil ko ko ci lu dul ay nelaw ca gànnaar ci gàddu gu ñuy wax Sarsara ci atum ak Chachine muy cent vingt ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ba ko ko joxee ci mujjug weeru koor wa eh, bisub juróomeelu fan ci sawaal di koor yi wa dolloo woon ak tolloo ci la sëriñ bi njëkk a feeñal kim ko jëkkoon a jox mooy dongam bu mag ba di taalibeem di borom xam-xam bu mag di nitug yàlla di jàngalekat bu mag di ku yàlla barkeel mbiram muy Cheikh Ahmad ibn Ahmad eh, Ahmad ibn al Hasan eh, radiyallahu anhu wa ardaah kon buñ tollee fii xel yu bare bari danaa ca dem ñu siy ndokkeelaat moom it mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibey murid yëpp rawatina waaye gën a rawati nag mbokki taalibey murid yi nga xam ne xam nañ al wirdul maxuus te di ko sonne di ci def yitte ci di ko jëfandikoo ak di ci gëstu ak di ko béggee waxtu wu nekk di ñaan sunu borom mu defal leen ñoom ñëpp defal ñu ak nangu ca yittewoo googe ak yéene jooje te fay leen ci lu kawe njor ci barkeb Cheikhul Khadim euh, di sant itam bu baax bokki euh, sit bu am solo bu barkel bi di alxadimiya ña ca bopp ñëpp sunu mbokk sunu wolore Serigne Mor Touré ak sunu mbokk sunu wolore Serigne Mbacke Mbegere ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi yëpp di ñaan sunu borom mu. barkeelal leen seenu liggéey ci barkeb Cheikhul Xadim te nangul leen ko ku ne xam na ne ñu ngi taxaw taxawaay yu ama am solo ci diine ji di ko taxaw itam ci xam-xam di ko taxaw itam ci yoonu sëriñ bi di ko taxaw itam nag ci lu jëm ci wàllu werdu wi ngir xamle ko ak yaatal ko ak wane ko ndax ku ne xam na ne kat lu yàlla la ci ñu wane ko xamle ko ndax euh, mbirum sëriñ bi la mbirum sëriñ bi nag lépp lu bokk ci mbirum sëriñ bi nag dafa yàlla dafa jaadu ñu xamle ko di ko wane di ci xiir nit ñi ak di leen wan la ca nekk ngir ñu man koo jëfandikoo mën koo yittewoo. wirdu wi nag niñ ko xamee mooy wirdu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ni nga xamee ne nit yàlla yu mag yëpp ñi nga xamee ne dem nañ ba yegg ci am tariqa sun borom baaxee leen ko ni ñu ko baaxoo waxee waxtu nekk euh, dañu am wird woo xam ne seen wirdu bopp lay doon day doon wirdu woo xam ne ñoo koy jago kenn ci ña leen mas jiitu du ko am loolu mooy ca anam ga wirdu way ñë demee ca tudd yàlla nekk nañ koy toftalee ak lim ya ndax jëmi tudd yi moom mënees naa wax ne ñëpp ko bokk ndax yu fi nekkoon la ci alxuraan ak sunna ak sharia waaye nag lim ya lim yañ koy limal kooka akuk njabootam ak ña aju ci moom ngir mu war caa yeesale diine ak nañ koy toftalee foofu la wute di am ndax mën naa laa wax ne la boo ñëwee ci alwirdul maxuus li nga xam ne mooy cosaan yu mag yi muy xasbala xasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ak lépp lu yor maanaam ak astagfar muy astagfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayyul qayyum ak lépp lu yor maanaam ak haylala mooy laa ilaha illallah sayyiduna muhammad rasulullah alayhi wa alihi wa sahbihi salatullahi tabaraka wa taala wa salaamullah ak lépp lu yor maanaam haylala ak salaatu ala nabi lu mel ne salaatu fatiha ji ci nekk yooyu lu ci bari da koy fekkaat ci yeneen tarixa yi ci des boo demee ci tariqa qadiriya da nga ca fekk lu ca bari boo demee tariqa chadiliya noonu boo demee tariqa tijaaniya itam noonu xas bala nga ci fekk waaye da nga ca fekk istighfar da nga ca fekk salaatu ala waaye fi wuute bi nekk mooy lim yi mooy wuute loolu xañ na ba waxtu yaatu woon daañ ko gën a mën a wane waaye ku gëstu ca yooyu rek da gis ne lim yi moom wuute da ci am yenn yi bu ñu amee ay niroo ci lim yi nañ ko toftale day wuute fii dañ koy jiital fee dañ ko fay mujjee loolu nag euh, bi nga xamee ne sëriñ bi radiyallahu anhu sunu boroom ci coobareem jox na ko tariqaam bi te tariqa buñ ko waxee ni ko sëriñ Serigne Bassirou wane ci menoon baaxal xadim wérdu wi mooy li koy jëmmal mooy li symboliser tarixa bi euh, moo tax nitu yàlla ki lu jiitu muy am wérdu wi muy ñëw ci moom ak la aj ànd ak wérdu wi ci ay charte ki teggi nag la koy accompagner ba léegi amagul tarixa day nekk ci beneen tarixa wala mu nekk boog ci ab tariq te mooy yoonu sufiyanke wi ci jëmmam rek di ca dox ba sun borom mu namm ko mu yeggale ko fee sëriñ bi noonu la mbiram demee buñ demee ci menoon baaxal xadim nga xam ne Serigne Bachir moom dégg ku dégg Serigne Touba la dégg ay mbindam lu bari lu sëriñ bi bindoon ci yooyu di ca leeral mu jël ko wanewaat ko gën koo leeralaat fëram fànce ko ndax sëriñ bi jëmam ci ay mbindam lu mel ne bidaayatu suluk ak yooyu buñ ca demee dañ cay gis ne moom ci jëmmam moo leeralal boppam aw yoonam wi mu jaar ci wàllu yoonu yàlla. lenn lum ci lum ci bàyyi lu lënt amut lépp leer bu dee ne nit ki dajale na barab yu wuute yi koy waxee yëpp. téye ko jàngat ko dana gis lépp mu leer ci moom mu xam fi mu jaar fi mu tàmbalee ba fi mu toll lépp da koy gis. Euh, euh, daa daa feeñ jamono ay waajuram ak njaboot gi mu bokk doon ay nekk ci tariq xadriya mu teel koo jël ba jël ko jotee jëf ca lam ca war jëf lépp euh, ba toll ci jamono joo xam ne ak xiram ak bëggam lu baax tax na mu bëgg di yokku ci wet yu ne tax mu yokk di jël yeneen tariqa ngir di ko barkeeloo waaye foofu ni mu ko daan waxee waxtu nekk laa koy fàttalee njuumte li ñu faral di wax lu bari naan sëriñ bi dafa jaar ci tariqa yépp wala ñu naan sëriñ bi dafa dafa jaar ci tariqa xaadiriya ba ci àgg mu bàyyi ko jaar ci chaadiriya ba ci àgg mu bàyyi ko jaar ci tijaaniya loolu moom buñ demee ci texte yi sëriñ bi bind boole koog texte yi nga xamante ni bii ne moom la sëriñ Bachiru bind boole koog yi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bind buñ boole yooyu yëpp téye ko lim ñuy wan mooy ci lu leer nañ loo xam ne amul benn lam lame sëriñ bi ci benn tariqa la mas a jaar muy tariqa qadiriya bi nga xam ne ci la fekkoon way juram ak i kilifaam ay kii euh, njaboot gi mu bokk mu jëloon ko di ko jëfe bi demee ba tollu jenn jamono nag mu jël tariqa chadiliya waaye jël gam ko jëloon du jëlug aju ca bokk ca tariqa ba waaye jëlug barkeeloo ko la woon ni nga xamee ne murid bii bu ko sooboon mu yor wi dama xos xaj na mën naa gis beneen tarixa tarixa yi jiitu woon mu bëgg caa barkeelu tax mu jël wér da wax donte ne bu dee murid moom du ko jar ndax ca kanam danañ wax lii tax du ko jar ci moom daanaka bu ko soobee euh, kon sëriñ bi noonu la def jamono am tollu jamono joo xam ne itam ba mu ko ba dafa dajale woon ñett yooyu yëpp loolu sëñ ma li mu jóg dagana bind na ko ci Ixnaawul Adim ne booba sëriñ bi jenn dafa wax ne jenn jat benn jataay la daan toog bu waxtu wér du jotee day toog benn jataay Euh, jàng wird yëpp ba jeex ñetti wird yëpp jàng wirdu xaadir jàng wirdu saadir jàng wirdu tijaan yi dellu ci ay yiteem bi mu jaaree ci jaar-jaar yooyu yëpp nag ba toll ci jamono ji nga xamante ne bii ne moom sëriñ bi moo waxal boppam du ko kenn waxal ma ko waxal boppam sëñ Bachir andi ko ci Minanul Baaxil Xadim sëñ ma Lamin Jóob Dagana andi ko ci Ixnaawul Adim indiwaat ko ci euh, Irwaa'un Nadim euh, bu ma juumut alawi sax it na ko ci Anafaxatu Miskiya bu ma juumut wala waaye ñaar ñe moom wóor na ne an nañ ko téer yooyu ma tudd te mbindum sëriñ bi la sëriñ bi wax ne dem naa dema dem ba nga xam ne am na sikki sàkka aku ñàkk wóolu ak daal dem na daal ba am na lu ko gaar ci wirdu yooyu mu yoroon mu dem ba gis ne daal dafa mel ne ñam ko jële woon lay suubi muqaddamin boo demee ca teg sub irwa minan mu ne lay suubi muhaqiqin sëñ Basiru leeral ca mu xaqiq bu ko sëriñ bi waxee mën naa wuuteeg yow booy dégg mu xaqiq noo koy déggee na sëriñ bi ak maqaamam foofu lay waxee. lu mën a xew sëriñ bi wax ne moom mu daal di bàyyi yooyu yëpp teg ko ci suuf daal di wax ne bi nga xamee ne dem na nag kon ci atum ay sos atum ye sos mooy at mi mujj jëfandikoo yooyu yëpp bi mu delloo ci demee ba ci atum ay sos mi 1311 ci la nag wëlbatikuwaat beneen wëlbatiku bu yees mooy wëlbatiku léegi jël mbiram mépp aj ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne amatul kenn ku dox diggam ak boroomam ci benn xeetu waasita wala sëriñ wala murabbi ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu sëriñ boo xam ne ko boppam ci yeneen barab mooy ca xissa ba nga xamante ni bii ne dem na gànnaar te waa kër Cheikh Sidiye doon ko wax loolu ko doon wax mi ngi ci menoon baaxil xadim ku dem danga ko ci fekk la sëriñ ba tontu woon kooka ne ko kat fii ma toll nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aqbala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yurabbiini wa yuraqqiini wa xaraamun alayya ba texte ba jeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ma dëgmal di ma tërbiyal boppam di ma tarqiyal boppam xaraam na ci man ma ajoot ci kenn kuy nekk ci kaw suuf loolu dëgganatu ci man ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu xasee dëgmalal boppam di la tërbiya te mooy murabbi bu mag bi boo ko fa ne gannaaw di dëgmalati kenn loolu mooy dayoom ñàkk teggin alias billahi taala loolu moo tax amatut sañ-sañu ajooti ci kenn ku nekk ci kaw suuf ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax kum doon aju ku ne ngir bëgg jokk ci yow ba yegg ci yonent bi alayhi salaam moo doon yitte ji léegi nag far na ca yegg noonu la ko mat Serigne Madlami nettalee ci texte boo xam ne waxi Serigne bi la maa ngi ci Irwaaw Nadim ba ko kenn ci borom xam-xam yi naar gànnaar laaj na ko dama gis ngay tudd waa kër Cheikh Sidiye kat di wax ak ñoom wax yu nu def leen ay Serigne mooy waa kër Cheikh Sidiye al la jublu loola ñam doon waxal ci anam googu mooy njabootu Cheikh Sidiye Kabir gi mu fi gi fi des euh, ku mel ne Cheikh Sidiye Cheikh ak euh, baayam Cheikh Sidi Mouhamad ak famille ba yëpp ndax wax na ci ñoom ay wax yu bari yoo xam ne ci tolluwaay ay jamono yoo xam ne booba foofu la tolloon noonu doon waxeek ñoom ci biir ay mbindam ba xasida sëriñ bi ne ko booba de damaa mel ne rek gumba guy palamtiku yoon kum seen rek jàpp ne njàccaar la gu ko mën a jël jaaral ak fi mu ko bëgg jaaral mat ko tax mu tàllal la loxo foofu laa tolloon booba noonu laa meloon daan ne ba nga xamee ne dem naa nag ba njàccaar lu mag li muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñul na ma boppam dëgmalal ma boppam téye ci sama loxo booba nag cala saqata min ni amrul wasaait noonu la ko waxee lu jëm ci wàllu kenn benn njàccaar lu may xemmemati di la tàllati loxo moom keroog la jeex ndax njàccaar lu mag li moom xas naa ko gis léegi dëgmalal na ma boppam jëmeel ma boppam ca yoon wa ca anam goo xam ne kenn ku dul moom mënu ko ndax keneen ku ma doon ja jokk ngir yegg ci moom rek a taxoon tafar naa jot ci moom. kon euh, bi nga xamee ne nag sëriñ bi jaar na jaar yooyu yëpp ba dem ci géej gi bi mu demee ci géej gi la bind itam beneen texte boo xam dafa wax ne ci géej gi texte boobu mi ngi ci Irwaawu Nadim ku dem ca An-Nubdal euh, Ighnaawul Adim bu sëriñ bi la muy jóobi da nga ko ci fekk. ku dem ca Minanul Baaxil Xadim bi da ko ci fekk sëriñ bi dafa wax ne bi demee ci géej gi. la sayyiduna jibril ñëw alayhi salaam selbu ci moom dinni ci moom rekki mboolem ndigal yi nga xamante ne bii ne jële woon na ko ci euh, tarixa yooyu jiitu woon jële woon ko ci ay muqaddamoon lu jiitu salbu ko nag anam gam amee lu mën a xew am na sëriñ bi noonu la ko waxee da koo salbu ci moom da ko rekki ci moom boo demee sëñ Sàmbay rahimahullahu taala dégg naa ko ci benn waxtaan muy mu firi ko ne salbu gi mooy da koo fàtteloo loolu mën naa demee noonu lu mën a xew sëriñ bi daal wax na ne daf koo ko dañ koo sëlbu ci moom dañ koo rékki nee na nag gannaaw bi la sunu borom jox yonente bi aleyhi salaatu salaam mu andi waatal ko ndigal yi jaare ko ci ndigali seeni borom gannaaw bi itam mu andi waatal ko ci anam goo xam ne jaarewu ko sax ci ndigali seeni borom waaye moom yonente bi aleyhi salaatu salaam moom moo ko joxal boppam directement loolu moo waral sëriñ bi. ne ko sëñ Basiiru nettalee ak sëñ Mad Lamin ci Irwa bi mu ñibbisee ci géej gi léegi nag moom muqaddam mutlaq la boo xam ne amagut amagut wirdu boppam ba ni mu demee gànnaar waaye wirdu yee moom fi ne nii mooy ndo mooy donnukat bu mag bi nga xam ne moo doon wird yooya lam ca am ci sañ-sañ ak man-man ak kàttan ak lam ca sañ a soppandiku amul ci kaw suuf ku ko sañ amut ndax loolu faaw ñu taxaw ci bàyyi xel ne loolu sëriñ bi def ci histoire liñ jot a gëstoo gun xamaguñ ci kenn ku lu mel noonu masaam ci moom nit yàlla yu njëkk yooyu fi jiitu woon muy Cheikh Ahmad Tidj Cheikh Abdul moom bu ñu wax tariixa jàpp ne moom la sosoo daanaka ci mafhum bi ñu koy gisee Abul Hasan Chadali bi mu ñëwee radiyallahu anhu ak maqaamam mu kawe mépp tariqa boppam la yor waaye doon na waalewu tariqa Cheikh Ahmad Tidiane eh, Cheikh euh, Cheikh Abdul Qadir Jilaani gisuñ fenn ci mbindam walla dongam fu ñu waxee ne yonent bi alayhi salaatu salaam wala sunu borom daf koo joxaat tariixam Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mu di ca soppandiku di ko joxee nu ko soobee. Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom ak maqaamam mu kawe mépp nga xam ne ko ne xam na ko waaye ba tey gisuñ foo xam ne wax na fa itam ne dañ koo donnaloo tariixa Qaadiriya ak Chaadiliya mu di ko jël di ko joxe na ko seeni borom doon joxe ak ci anam gi xam ne ak bi doon defee sëriñ bi nag bi mu ñëwee moom loolu ak jagoo la ko suñu borom jagleel moo tax tariixaam ni ko sëñ Basiir moom tarixa jaamia ala boo xam ne tarixa la boo xam ne dafa dafa dafa boole mboolem tarixa yu ko jiitoon yépp sëñ Basiir dana fa jamaa al kulla wa zaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nicma murtaqa fa in axadta wirdahu axadta wirdal jamii laa taxaafu kapta bi mu ñëwee moom suñ borom daf ko yéege ba donnaloo ko tarixa yu ko jiitu woon ba mu donn ko ba noppi doog koo ñàmbaasal ba su boppam loolu lu la ndax ci géej ga lañ ko dajaleel yëpp joxaat ko ko ci anam googu mu nekkaat ca dox ca ab diir ñu doog a ñëw jëlaat nag yi fi boppam tëbbal ko dolli ko ci dollil ko ko léegi nag mu nekk koo xam ne kon dafa dajale lépp la boole dajale kon moom moom bu ñuy wax alwaarisul muhammadi al akmal mooy Serigne Touba radiyallahu anhu nga xam ne moom euh, euh, diine ji ak charia bi ak bi danga naan mooy jëmm ji nga xam ne moo ko moo ko moo ko ngar daajoo lépp moom dara desut amul lenn lu muy wànqiwaat fen waaye lépp daa maase te mu téye ko ci loxoom di ci soppaxndi ko nu ko soobee doonaat rek jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ju taxaw ci kaw suuf loolu lu lu kawe kawe kawe la bu dee ne bu dee ne xam nañ ko euh, sëriñ bi nag bi nga xamee ne yegg na ci datub ak sës boobu euh, yonent bi alayhi salaam dikkal ko jox ko wérdu bi nu ñu ko waxee woon ak charte yaag la ca aju lépp ciy teggin sëriñ bi bindal ko boppam biñ demee ba ci xamis shawal boobee di bisu ajjuma sëriñ bi njëkk koo jox ki mu ko njëkk ko jox mooy taalibeem boobu di Cheikh Ahmadu Ibnul Hasan Ibnu Hamadi euh, daal di wéy di ko joxe euh, mag ñi nekkaloon ca réew ma ca gànnaar mu leen koy jox ña fa fekk seete ko fa siyaara ji ko fa ñëpp itam mu leen koy jox ñi fi nekkoon te yàlla dogal jotuñoo dem foofa itam wala yeex na ñoo it sëriñ bi yónnee leen ko xam nañ sëriñ bi yónnee ko sëñ Mor Jaara magam fii te booba mi ngi fii ci Mbàkke Bawol yónnee ko ñeneen ak ñeneen bindal ci ñeneen ay ijaasa wax ci lu bare bare bare bare jamono jooju nga xam ne jot na ci loolu nag sëñ Mat Lamin ni mu ko nettalee ci raw Nadim te moom daa dundu loolu daf ko teewee wax ne sëriñ bi euh, gannaaw bi mu jotee wirdu wi képp ku ñëwati ci moom di aju ci moom te jógoon ci ba jóge ci beneen tariqa lu jiitu sëriñ bu la laajee nga ne yoroon nga beneen tariqa bu jiitu xaadiriya wala chaadiriya wala tijaaniya dalay wax ne la man nga koo man nga man ngaa léeg-léeg léeg mu yeesalal la ba nga yoroon loolu day mel ne nag jamono ji mu ko doon gën a defee day mel ne lu ci bari mu ngi doon doon jamono ji nga xam ne xaj na ci ni ma ko jàppee xaj na booba wird maxuus di ko gut mën na laa yeesal xaadiri ba nga yoroon wala saadiri ba nga yoroon wala tijaani ba nga yoroon waaye bu la koy yeesalal dalay wax ne la danga koy jël ci ndigalul ci yéenee ne ci man nga ko jëlee loolu nag ni mu koy waxee waxtu nekk rupture lay firi mooy sëñ Mbàkke démb mi ngi yoroon wérdu tijaan yi doon ko jëfandikoo mën naa am ay at la ko yoroon ba am na calam ca am waaye am na lu mu soxla loo xam ne amagu ko ñëw na ci sëriñ bi sëriñ bi moom fi ne nii daa taxaw ci maqaamam yonente bi alayhi salaatu salaam léegi maqaamam mboolem aqtaab yi fi jaaroon yëpp moom ci biiram la rono ci biiram la dugg bu ko defee sëriñ bi daa am sañ-sañu ci wérdu wi sañ-sañ ba ci Ahmad Tijaani radiyallahu anhu amoon moom la ca am ndax kak ko joxoon moo ko jox mu yonente bi alayhi salaatu salaam loolu faaw ñu comprendre ko xam ne mbirum wérd du du lu matériel loo xam ne day mel ni micro yi nga xam ne bu ma ko jëndoon moom ko tey sëñ Mbàkke ñëw ma may ko ko jox ko ko ñàkk naa ko man bu ma ko bëggee amaat dama koy ñaanaat mu mayaat ma ko baaxee ma ko wala ma fayaat ko prix ba ma ko jaayoon wala bu ko raw mu jaayaat ma ko bokk loolu rek mën a tax ñàkk naa ko keroog ba ma ko mayee jeex na wërdu du loolu maanaam du lu ndax ni nga ko mën a misaale mooy yow mi am ndigal ci wérdu wi ci wérdu mën a doon ci wérdu tarixa yi di ko joxe mën nga koo jox fukki junni junni junni nit te du tax nga ñàkk ko <laughs> maanaam ndax mi ngi mel ne xam-xam rek xam-xam li nga jàng ba xam ko mu nekk ci sa bopp jàngal ko million yi nit du tax nga fàtte ko day tax sax nga gën koo xam mu gën a dëgër kon moo tax loolu faaw ñu comprendre ko ba ñenn ñi bëgg a jàpp ne day mel ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu joxee wird nit yàlla sàngam day mel ne daal dootu ko mën a joxati keneen loolu kenn waxu ko amul fenn fu ñu ko firndeel itam munta ne amul leen lu ko mën a saxal itam ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moom dara tënku ko moom ci coobare yàlla la nekk ci lay dox ci ndigal yàlla lay dox. sëriñ bi euh, bi nga xamee ne nag dem na ba wirdu boppam bii ñëw nag sëñ ma sëñ euh, Al Alawi ci an-Nafahatu Miskiyya dafay wax ne. ku ñëwati léegi sëriñ bi daf lay wax ne la boo xamee ne daal yor nga waneen werdu lu jiitu te mën nga koo booleek wii boole leen nuurun ala nuur leer ak leer ñaari leer yoo boole la rek ñaari leer moom boo leen boole day gën a leer rek bu ko defee werdu wa nga yoroon da koy booleeg maaxus di di leen boole jëfandikoo daal lay wax ne la boo fekkee ne nag sëriñ bi da cee teg ne nag boo ko munta boole nag bàyyil wa nga njëkkoon a yor jël wii moom ndax wa nga njëkkoon a yor. léegi dañ koy tuddee bu dee ci sëriñ bi bu dee nag da nga ko jëlee ci sanat boo xam ne ca kuréel yooyu nga ko jëlee moom boobaa tur woo wala yor ba tey xaqiiqa booba it moo ca dox waaye bu dee na nag ci sëriñ bi nga ko jële wala nga jëlee ko ci benn silsila bu jokk ci sëriñ bi loolu moom ba jamonoy tey jii na noonu lay doxe boobaa wird woowee tudde gañ koy tudde nitu yàlla kam jaaroon majaas rek la maanaam mooy jaar gu ma soon jaar ci loxoom la ñu xamee woon ko ko ci lu jiitu sëriñ bi moo tax faaw noonu ñu koy tuddee boo nee sëñ Mbàkke kat dafa dem sëñ Muntaxa wala nga dafa dem ci sëñ jiw mu jox ko wird Maxuus jox ko wird Xaadir wala jox ko wird Tijaan wird ba jox ñu koy tuddi wird Xaadir wala ñu koy tuddi wird doonatul wird Xaadir doonatul wird Tijaan wird la ci wird Cheikhul Xadim waaye nag faaw ñu tudde ko noonu ndax daa dox téeméeri téeméeri at wala boog dox na lu mat téeméeri nangam. sëriñ bi doo ko amaat moom ci ndigalu boppam li mu ko amee bu ko defee moo tax gannaaw noonu mu doxee woon noonu la doxee dañ koy tudde tur wañ ko baaxoon a mii ne rek waaye teewut wérd la ci wérdi sëriñ bi ne maaxuus waaw moo tax Sëriñ Tuubaa moom amut différence ci moom amut différence ci moom dëgg-dëgg day mel ne maanaam ci ci ci dama juum li ma bëgg a wax amut différence ci yow taalib bi laa bëgg a wax sëriñ bi sëriñ bi jox la wérdu euh, maaxuus wala mu jox la wirdu xaadir wala chaadili wala tijaan yi bu la ci tànnal jox la ko rek yow booba mooy bëggan ci yow jëfandikoo ko xam nga gis nañ sanat bi nga xam ne sëriñ bi ijaaza laa bëgg a wax bi nga xam ne sëriñ moom la bindaloon sëriñ Aliou Seck wanaar sëriñ Aliou Seck radiyallahu anhu góor yàlla gu mag la euh, xam nañ njabootam ba léegi ci Saloum ak fii ci Touba gi euh, yoroon wérdu tijaan dox ca lu yàgg doon nit ku yàlla ku baax a baax sëriñ bi joxaat wéru tijaan damay jàpp ne booba man naa am xaj na booba sëriñ bi jotagul wala boog jox na ko waaye am na illa wala xikma bu tax sëriñ bi joxaat ko wéru tijaan te jox ko wér du maxuus xaj na wala mën naa am bu ko jox wér du maxuus mu nekkaat gannaaw bi en tout cas ca ijaasa ba daal sëriñ bi wéru tijaan la ko jox dolli ca itam wax ko ne ko bula kenn laajee lan mooy sa sanat nee ko ci man nga ko jële ma jële ko ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy lu leer a leer léegi wird woowu nag doon wird woo xam ne solo sim am jéggi na dayo dayoo euh, wird la woo xam ne boo ko xasee jot jël ko man ngaa wax ne man ngaa bañ a jëlati wenn wird bu la soobee ci wird ko jiitu woon ndax daa doon wird woo xam ne daa dajale mbooleem la nekkoon ci wird ko jiitu woon yëpp ba noppi dolli ay mbiri boppam loolu mooy boo xasee jël ko ni ko Sëriñ Basiiru leerale boo xasee jël wirdu maxuus ak i chartam ak i la caaju ci wàllu doole ji yëgal ne jël nga wirdu xaadir jël nga wirdu chadiri jël nga wirdu tijaan jëlaat waneen wirdu wax ne bokkut ak ñoom maanaam yooyu yëpp da koy boole. moo tax mbooleem loo xamante ni bii ne nekk suñ basiru nettalee seeni borom ñoom ñu jiitu woon waxoon nañ ko ci seeni wird ci ay diggé yu leen ci suñ borom defal yonente bi aleyhi salaatu wa salaam jot leen ko ja dig yooyu yépp da koy am yow ci biir wirdu maxuus bi nga ko yoree ba noppi yoraat yi nga xam ne nag yëfi Sëriñ Tuubaa la yoo xam ne yu boppam la yoo xam ne moo ko jagoo te ku ne xam na ne wirdu yooya buñ delloo ci seeni téere yi cosaan lañ ca nettali ci ay digg yu ci seeni borom joxe te yëpp di dëgg yëpp di lu kenn xamu nu mu toll am na ci yoo xam ne daanaka ëpp na mu xel moo tax sax ñenn ñi nga xam ne mënuñ ko dégg di ca am ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu yu juunu la waaye loolu ñàkk xam rek la. suñ borom moom yaatu na yaatu goo xam ne xajoon na lépp lépp tam xaj na ci moom euh, ca ca lay doxee amul dara lu ko tënk euh, sëriñ bi nag wax ci lu bare bare bare bare bare daanaay faral di wax ne euh, li ma seetlu sax mooy sëriñ bi saa yoo xamee ne mi ngi li ma seetlu bokk astafurlah li ma jot a gis bokk ci ay barab yoo xam ne sëriñ bi wax na ci lu jëm ci wàllu wérdu bi ci ay ngëneelam ak dayoom da ngay gis ne saa li ma ci gis lépp bu ci wax day jëfandikoo min nangam loolu lay wax bokk na ci bokk na ci ku ko jëfandikoo nangam nangam wala yu mel noonu ci biir loolu sëriñ bi wax na ci ay wax yu bare bare bare euh, dama naan nag yooyu muy wax naa bokk na ci nangam dalay wan ne la kon waxul lépp ba tey fu ne dafay wax dara rek euh, wax na ne képp koo xam ne saxoo na koo jëfandikoo ak i sartam di ko sàmm dana texe texe goo xam ne ak texe du du ca topp mukk àdduna ak alaaxira tey dana nekk muumin muslim muhsin nekk muumin muslim muhsin nag loolu yombut te ba ca sëriñ bi wax doonul muumin muslim muhsin bii nga xam ne dama naan ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ñu ne muumin laa may jullee ko war ñu ne muslim laa may jéem a góorgóorlu tuuti ñu ne muhsin laa déedéet waaye lam jublu ci muumin muslim muhsin mooy ca maqaama yel bëgg a wax ok maanaam ku ku koy jëfandikoo ak sartam di ca dox na ca war a doxee dana lay yéege nga yéeg di yéeg ba yegg ci kamaalul imaan yegg ci kamaalul islam yegg ci kamaalul ihsan te mooy yaqiin ak wusul ak maarifa cheikh euh, alawi nett la ci annafaatu miskiya wax ne wérdu sëriñ bi bokk na ci jagleem képp ku koy jëfandikoo laa budda la wax ñàkk faw da am wusul ilallaahi tabaraka loolu la laa budda la wax képp ku koy jëfandikoo te moom ma ko wax du koy waxe ba kanam ku ne xam na la mu wax benn daf koo déggee ci sëriñ bi directement wala mu doon loo xam ne loo ko yàlla xamal la ndax Alawi nitu yàlla la woon ñi xam-xam nañ ko kàngam la woon ci xam-xam goo xam ne ku ku ku jommale ci wàllu xam-xam te ku liir séeréem bi danga nga ko ci xamee ku yàgg sëriñ bi la ndax euh, jiitu na gànnaar ku ku yàgg sëriñ bi la euh, jàpp nañ moom jokkoo na ci sëriñ bi sa laata sëriñ bi dem ci géej gi yàgg na moom lool. nitu yàlla ku mag la itam koo xam ne ku bari ay karaama laa ki mbir mu wax ne képp koy jëfandikoo ak sartam mënut a ñàkk mu yegg mu am wusul ilallahi tabaraka wa taala te mooy mu yegg ci suñu borom yegg goo xam ne du am benn sikki sàkk du am benn le sëriñ bi itam waxaat ci yeneen i wax wax ne képp koy jëfandikoo it suñ borom dana dugg àjjana ëllëg te suñ borom du ko xisaab du ko mbugal teyit it seytaane du ko jege da lay daw wax ne itam suñ borom it dana dox sa digganteeg lépp looy ragal ak moytu ci àdduna ak alaxira loolu nag boo ko boolee da ngay gis ne kon mooy yiw àdduna ak alaxira yépp lay dajaleel ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mu ci wax. Ndeysaan am na texte buñ ci gis boo xam ne bu yàggut day mel ne ca ba muy doog a feeñ la woon sëriñ bi di wax taalibe di leen wax ne leen lii ma leen jox na ngeen ko fonk te téye ko te sàmm ko daal di ci teg ne mbir la moo xam ne ñu dul yéen danañ leen ko ñëwee lu dul ñu dul yéen danañ leen ko ñëwee. loolu nag boo ko doon firi bokk na ci ni ko mën a firee ku xam euh, li ñu tuddee uluwu sanad mooy am càllala gu gàtt gu la jokkale ak yonente bi alayhi salaatu salaam ndax càllala daa mënut ñàkk ci diine nit yàlla yi dañ daan wax ne ci tasawuf képp ku ci askano ne yaa ngi ci te amoo genn càllala gu la jokkale sóob la ci caqub gaa yu baax ñi seenu seen bi seen doxin wa ba yegg ci yonente bi alayhi salaam yaa tudde sa mopp ku nekk ci yoon waaye nekkoo ci maanaam kuy askanoo yoon wi nga waaye bokkoo ci yow bokkoo ci da niñ ko daan waxee sax fa huwa daa yi wala fa huwa day mel ne koo xam ne daal danaan diwéy sama baay te kenn xamul kuy baayam kooku kenn du wax ne aw askan am na kenn du ko tuddal askan ndax askan ci baay lañ koy jaare xam ko loolu nag kon am na lu muy jëmbal mooy ne mooy mooy mooy mooy leeralaati la sëriñ bi daan wax te Cheikh Ahmadu cheikh sidi ahmad ibn simud dayman radiallahu anhu nettali ko ci almaqulaat fi lxadisat wax ne sëriñ bi daana leen wax ne lan yatuula sanadu lan yatuula sanadukum daa ne lam yatuli sanadu baynakum bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innama ana waxdi seen digg ak yonent bi alayhi salaam sanad bi gudd te du gudd ndax mel na man dong la maa fi dox yéen yii ma jamonanteel moom yéen la man rasulillahi sallallahu alayhi wa ñun ñii ñëw gannaaw bi itam ba tey noonu ndax ñun ñii ba léegi ku ci am tawféex ji te góorgóorlu ci mën ngaa am sanat bu gàtt gàtt gàtt boo xam ne sa digg ak yonent bi alayhi salaam du mat juróomi nit danaa koy wax di ko misaal lu bari misaal boo jógoon dem ci sëñ muntaxaa tey mu jox la wér du maxuus sëñ Muntaxa la Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikhul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa <laughs> loolu sanat la boo xam ne dëgg la ci wér ne ko sëriñ bi waxe ñu dul ñun daanañu ko ñeewee ndax jamono ji ñu toll nii ci kaw suuf xawma fenn fenn fenn foo xam ne nit dana fa dem maa mën a am sanat ca tariqa boo xam ne sa digg ak yonent bi alayhi salaam matul juróomi nit waxuma la sa digg ak yonent bi alayhi juróomi nit waaye sa digg ak sëriñ ba yàlla ba ba yonent bi joxoon tariqa bi sax matul juróomi nit daanaka mënoo ko am fenn day da koy ëpp sax laa wax di dem da koy ëpp di dem da koy ëpp am na ci tar tariqa yoo xam ne moom faw si digg ak sayxu tariqa ba maam day ëpp moom daanaka téeméer ni da koy jege te daanaka mënoo ci dara faaw mat ko ndax da dafa yàgg daf laa sori sëriñ bi nag yàggagut suñ digg ak moom ba noppi suñ borom dajaleel ko la jiitu woon lépp ak lim ko def muy muy cëru boppam. loolu moo tax kon képp kuy taalibe murit wala képp ku bëgg lu baax war nga cee sonn te def ci yitte ndax du sax taalibe murit dongo ndax mënees naa jël wérdu wi ci anamuk di ko barkeeloo donte yaa ngi ci beneen tariqa ndax boo ko yoree moom. yoraale nga sa tarixa yoraale nga lépp dafa dafa dafa bari daal lu ci nekk sa lu xaw a loo xam ne neexutoo wax lépp sëriñ bi bi mu ko jotee amoon na ca Murtani ay nit ñu baax ñun xam ñoo xam ne dañ daan ñëw ci sëriñ bi seen tarixa yi ñàkk sa xëy na bàyyiwuñ ko waaye dañuy ñëwaat ci sëriñ bi mu yeesalal leen ndax lan càllala gi daa gàtt moo tax am na ci nit ku baax koo xam ne dañuy nattal ne ci tarixa xaadir la nekkoon léeg bu nit ñëwee te nekkoon na cheikh la woon ca tarixa ba di ko jox mbooloo mu bari léeg-léeg nit day ñëw bëgg a jël ci moom tariqa xadriya danaan la ndax ma jox la ko ci sanat bu gudd bi ma jëlee woon ci sama baay mu jëlee ko ci sëriñam ba mu yegg ci kaw wala ma jox la ko ci sanat bu gàtt bi ma jëlee Cheikhul Khadim loolu la wax ba ñaari sanat boo ci bëgg boo ko wax rek mu jox la booba kon moo tax lu ama am solo la loo xam ne nit yàlla yi dañoo yàgg wax ne sa sanat sanat boo ko wax mooy chaîne transmission bi nga xam ne moo tax sa digg sëriñ bi lum gën a gàtt gën a gàtt courant bi ci ne mooy doole ji mi am ci tëbb la day gën a day gën a day gën a day gën a am doole loolu euh, ci wàllug batin la moo tax xaj na ñëpp du mën a leer ci ñoom waaye ci wàllug zahir si mënees na koo dégg courant bi bu fekkee ne dañ koo jële ca centrale ba mu jaar ci ay post ak ay kii di ñëw ba yegg si ci dëkk bi bu ñëwee ci dëkk bi ñu branché ko ci poto làmp yi mu dugg ci kër yi am na kër goo xam ne wàcceen nañ ko fi kër ga moom courant am dana am courant bu doy la waaye bu ñu amaatee lu mat fukki kër wala ñaar fukki kër yu tofu ci gannaaw kër gi yoo xam ne ñëpp dañu jokk-jokkalaate genn fiil nga xam ne waa man sama kër ñoo am fiil wàcce ko ci poto bi am na courant bu doy waaye sëñ Mbàkke daa ñëw jëlewaat ci man la jële jëlewut ci po ca ca poto ba waaye ci man la jële bàyyilaat ñëwaat jëlewaat ci sëñ Mbàkke sëñ Fallu ñëwaat jëlewaat ci bàyyilaat ñuy ne dem lu muy gën di dem courant bi day gën di feebal dana dem ba yàgg ci koo xam ne bu muy tuut courant bu bëccëgee du mën a taal faaw gudd lee mën a taal courant loolu mooy wane silsila bu gudd beeg bu gàtt bi jeexit ji nga xam ne am na ko ci boo ko mënoon a misaal moo tax lu ama am solo la li ci nekkaat sax it nag mooy gannaaw boo xam ne yooyu yëpp wax nañ ko ci ay xeeti njariñ ak lu caaju dama naan wirdu maxuus moom mooy loo xam ne yooyu yëpp dañ koy wax rek ngir teg ci sa loxo dara ngir nga mën a nga mën a xam tuuti dara lu la lu la poussé ci nga ne naa ko jël waaye li ci nekk moom dafa mel ni mënees ko wax nit li ma ci itam mooy bu juróomi nit toogoon fii ñoo xam ne ñëpp jël nañ ko di ko jëfandikoo nga laaj leen kenn ku ci nekk bu la waxee dëggal ci dëggam mën na laa wax lu mu ca yëg wala lu mu ca gis loo xam ne keneen ka ci des du bokk ak lam ca lam ca gis ak lam ca yëg dafa dafa dafa yaatu yaatu gi dafa jéggi dayoo njariñ li itam ak fooraay bi ci ne loolu moom Euh, ay nit ñoo xam ne sax jaar nañ ci yeneen tarixa seere nañ ko ne gis nañ ni doole ji ci nekk doole ji ci ne ak gaaw gim gaaw ci def jeexit joo xam da ko yëgal sa bopp gisuñ ko sax ci yeneen wérdu yaa nga xam ne gis jiitu na ko euh, te loolu ku ko mas danga ci xam dara am na loolu nag li ci nekk moom mooy luñ la mën a wax mën a wax mën a wax mënuñ laa wax ba mu leer mi ngi mel ne ni ma koy waxee rek suukar ki ko mos sa mos mënoo koo expliquer ba mu xam caf koog suukar mënoo ko li nga man rek mooy jël aw bekk teg ci ñoom mu saf ko ni mu la safee waaye mënoo wax a wax a wax ba mu leer ko mu xam ni sukkar du saf lu fekk mu sëggu ko ndax mënoo ko leeral euh, ñi koy jëfandikoo ñëpp it ñenn ñu nekk am nañ ci seen yuñ ci gisal seen bopp mboolem yi ñuy wax yëpp yu koy firndeel dañ ko ciy gis yu bare bare bare ba ci fi ne boole gi mu boole wirde tarix yi ko jiitoon yëpp bokk na ci li nga xam ne da koy ay nit dañ koy gis lu bare bare bari te te te da ko da day mel ne da leen koy jëmmalal da leen koy justifier rek leen ko wan mooy ñu bare bari ñaare bu ñu ko jëlee ci njëlbeen gi léeg-léeg bu ñu koy jëfandikoo ci njëlbeen gi te di ko sàmm dana bari lool lu ñuy gis ci ay gént ak yu ni mel nit yàlla yu njëkk yooyee Cheikh Abdou Khadir Jilani Cheikh Abul Hasan Chadri Cheikh Ahmad te loolu dara warulu ko lu may donn gim xam ne donn na ko tarixa yooyu jiitu woon ak dëxëñ guñ ko dëxëñ ci biiram loolu rek mooy di ko waral ak yeneen ak yeneen ak yeneen euh, am na sun benn xarit ca Maroc daanaka faral di nettali euh, nettali na ma ne ma taalibe la ab marocain la waaye ab taalibe la nett doon ko bëgg gëstu lool moo ma nettali ne ma bis bi nga xamee ne ci laa ko njëkk jëfandikoo bi ma ko jëlee toog waxtu takkusaan julli ba noppi toog di wérd damaa tàmbali wér tuuti rek ba càgg rek ma jekk-jekk xaw a mel lu jaayox rek gis Cheikhul Khadim toog teg ma nii ci penkam te loolu moom boobu la ma saam daal ne ma sama waajur mii yaayam yaayam xam naa ko sama wóllëre la ku baax la nday sant murite lool am pëstéef ne ma sama yaay mii moom it bis ba mu ko njëkkee jël bis ba mu njëkk a toog di ko def ca guddi googu la njëkk a génn gént gis yonent bi aleyhi salaatu salaam te ci dundam mos koo gént gis mustaam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bare bare bare bare yoo xam ne mi ngi ci euh, yoo xam ne daal donte na nag man danaa wax ne yooyu yëpp sax nag wurta tax nga di ko jël yow li war a tax nga di ko jël daal muy sa yéene mooy la sëriñ bi wax te mooy suñ borom jariñ la ci àdduna ak àlaxira jariñ gu àndut ak lor jegeel la ci boppam jegeel la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jegeel goo xam ne dana la jariñ te du la lor ak it yéene jëfandikoo ndigalu sëriñ bi ngir gën a wéral sa aju ak sa ci sëriñ bi loolu mooy li war a doon pas-pasub nit ki bu ko xasee doon nag sell la ca des lépp lu la cay fekk doon lu lay dog ci yoon fekk la ca rek doon ay ay ay ay ay ngëneel waaye bu mu doon loo xam ne moo lay tax a jóg ay wut maqaama sàngamag wut daraja sàngam ak jëfandikoo ko ngir am ay kusuufaat yoo man di am ak di mën a xam loo loo xamutoon nag yooyu yëpp dëgg la baax na waaye wutu doon sa yéene li war doon sa yéene mooy jëfe ndigal ak it man cee jege sa borom jege ci yonent bi alayhi salaatu salaam jëriñoo ci àdduna ak alaaxira jëriñu gànt ak lor loolu moo war a doon sa pas-pas laneen lu ñëw nag doon rek loo xam ne ndool leen lay doon waaye doon toon sa it doon toon sa sëg jublo moo tax daal ñu ngi ciy soññaat bu baax a baax a baax bokki taalibe yëpp tey wax ne fi ñu toll nag jamono toll na foo xam ne nit ñi bëgg nañ lu baax di ko wër wet gu di ko wuti fu ne waaye li may wax mbokki taalibe yu bari daal ca fee ca fii fu mën a doon man day wax dëgg yàlla li ma gis si wut ma xos gisuma ko ci lenn ci lu ma xam gisuma ko ci lenn moom lenn lu ma gis amut te euh, bu ma gisoon ci lenn itam wax ko waaye du ko gisoon ci lenn rek li wér nag mooy jeexit ji moom ku ko mos danga ko gisal sa bopp waaw lu yomb la ci wala nga ne lu am solo la ci jàppandalal nit ak jub te jub lu jafe la ci jamono juñ toll jub lu jafe la ci jamono juñ toll waaye lu jàppandi la lool te yomb te am doole ci jàppandi la nit ak jub ba bu ko tàmbalee jëfandikoo diir bu gàtt di ko jéem a sàmm lu mu néew néew dana yëgal boppam ne bari na ay jubadi ak i euh, ak safaan yu mu daan def xaj na bàyyi ko xaw koo jafe day day jekk-jekk rek tàggoog moom te du xam lu ko tàggaleeg moom ay càggante yu daan sàgganit jekk-jekk gis ne day cay tàmbalee amuk farlu te dootu yëg lu ko booleeg moom gis ne it am na ay xeeti jaamu yàlla yu mu bëggoon mu jafe ci moom ba yenn yi xaj na jàppoon na ne sax du ko mas a mën ci dundam jay jekk-jekk rek mu jàppandi ci moom loolu yomb ci moom te du ko yëg loolu nag mooy istiqaama te istiqaama moom mooy lépp sëriñ bi nee na wa axbaru bi anna al istiqaama nihayatu salaax wal karaama istiqaama moom ci la mooy daj jëpp gi fii la lépp nekk ndax lépp lu nit man di jëfandikoo ci lu baax nag ci turu yàlla ci tariixa ci wird te tàggalewul ak jubati tàggalewul ak mooy yàlla yi bàyyi ba nga xam ne daanaka rek génn goo génn goo pexe seytaane ba tey ndax nag lu baax moom njariñam da cay bokk faw da lay tàggaleeg safaan yi bu ko defee di la dolli ci lu baax li ndànk-ndànk lu mu la ca dolli lu mu tuut tuut mu baax waaye li fekk tàggalewu la ak safaan yi moom wax dëgg yàlla mucc ci moom boo jàppee def nga koy defagoo ko ndax seetaane moom loolu mooy buntam kon xam naa faw daal mat naa defaat yitte euh, euh, am jeexit lool itam ni ma koy waxee ci mën nit. Euh, tumaaniyatul xalb ak raxatul baal démb rek koy ay bokk li ma ci seetlu ci xam nga jamono jamono jiñ toll jamono stress la joo xam ne nit ñi stress bi nekk seen bopp kenn xamu nu mu toll bari na nit ñu jekk-jekk xeexee tëlbati te stress bari rek moo leen ko yóbbee am ñoo xam ne ñi ngi jànkonte yeneen wéradi te borom médecin yi borom xam-xam yi wér-gu-yaram dañ koy wax stress li tax mu bon mooy day rey nit ndax bu xasee nekk ci nit ba am doole jëpp jàngoro ju mu fekkoon ci moom da koy gën a renforcer yokk ko doole ba jàngoro jooja faj ko dootu yomb léeg-léeg faatu yu gaaw yu bari yu ñuy gis stress ber rek bokk na ci li ko yóbbee nit ñi ndax jamono tànk-tànk jamono xat-xati jamono coono yu bari yeeg lijjant yu bari yeeg mettiti jamono ak soxla yu bari yi daanaka wëlbati xel yi ñëpp. wérdu wi nag damaa gis ne daa bokk ci li gën a gaaw moom ci mën a féexal xelum nit ak xolam maa ngi koy wax démb yenn bokk na li ma ci seetlu sax mooy. dana yóbbi nit féexu xol ak xel mu dal moo xam ne bu yeexee sax mën na ko far jural ak càggante nag waaw ndax dangay mujj mbo maanaam da ngay nekk ci àdduna di ci dund li nga war a def nga di ko def di góorgóor li nga war a góorgóorlu waaye fër-fër ji nit ñi nekkee ci seeni xol ba tëlatuñ dara day mel ne yow dara du la ko mën a yóbbee maanaam bu àdduna doon tukki itam da da mel doo yëg ne daraa ngi xew dangay jàpp ne da yëg ne daal yaa ngi ci xol bu feex waaw dara lu lay jaaxal ba occuper sa xel ba ba ba fab bi la daa doo ko yëg loolu nag bu ñu wax tax ak àdduna dëgg-dëgg loolu mooy tax àdduna ndax àdduna li may wax toujours milliardaire yeeg président yeeg buur yeeg ñëpp ku ca ne la nga yor kër kër lu ne ngir jot ca dara taxul nga di ko kër kër yi ak di ca sonn ngir jot ca lu may bëgg am tax ak àdduna tax àdduna nag doonul jëmmi am alal ndax bari na ku yor alal ju dul jeex. fekk la yow nga doon ko wax ne ñaari fifteen fanaanoo woo ko ba noppi mu la ci xel mu dal mi nga am ak fidu dal mi nga am nguur ñi ko yor ku ne xam na ne amuñ fidu dal amuñ xel mu dal ndax loolu doo nga leen yóbbee fu ñu toll ay nangami junni nit di leen wër di yore ngànnaay di leen garder waxtu nekk amuñ fenn ñu mën a wéetale seen bopp fu la boo koo ci gisoon mu nekk ci mbedd mi sax di dox bàyyi boobu wóor la dala koy naxee nii rek waaye doxul ci mbedd moom dong nangami junni nit da nga ko wër wet gu ne bis boo seqoonu jéego jëm ci moom rek ñu yegg sa kaw loolu mooy wane ne amuñ xel mu dal amuñ fi du dal nii nga sañ yow dox ci mbedd mi fanaan fa la neex yenn fa amuñ loolu. loolu nag te teewut fi ne ki ko doon wut ba jot ca moom dara taxutoon mu di ko wut ngir lan bëgg am rek xel xel mu feex moom ak xol bu feex boobu lool la doon wut waaye nag doomu aadama moo bindoo léeg-léeg lim soxla fu ne lay tuñ tuñi di ko fu wut jàpp ne fa la neex te fekk du fa nekk léeg-léeg dangay gis ne nag lu gën a gaaw ci jox ko nit moom man xamaguma ko wax dëgg yàlla lu gaaw la ci may la xel mu dal ak fit wu dal jafe-jafe yu bari nga tàggoog moom xam naa ay nit yoo xam ne tolloon nañ ci ay jamono ay jafe-jafe liggéey ay jafe-jafe yoo xam ne léeg-léeg am na xam naa des mën a wax lépp waaye ñoo xam ne sax xaj na yeneen i mbir yu yu ñu àndal ci xeeti ay àndandoo ak ba ndeysaan mujj nekk ci situation yu méttee métti ba daanaka rek seen àdduna yàqu euh, day mel ne suñ borom nag ci coobareem nar leen a dimbale euh, xaj na ñàkkut kuñ dégg ku koy waxtaane wala dara ñu xemmem ko bëgg waaye bañ ko tàmbalee jëfandikoo diir bu gàtt dañoo gis ne moom lañ doon jàmbat ak lépp dañoo daal tàggoog moom ci diir bu gàtt gàtt gàtt daal di jekki-jekk am tawféex joo xam ne jafe-jafe ñu doon jàmbat wéri di yàgg yu bare bare dañ daal di gis muy dellu gannaaw ndànk-ndànk ba lépp ñu tàggoog moom waaye loolu lépp nag ma di ko fàttaliwaat ne bum tax kenn jël ko waaye nag dañuy wax rek lenn ci yuñ ciy gis loolu rek la waaye bum tax kenn jël ko waaye ku koy jël na ko jël rek ngir yéene te yéene ji sell la yàlla rek tax sëriñ bi rek tax kon ñu wàcce foofu suñ kàddu di santaat bu baax euh, waa alxadimiya ci taxawaayu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee di ñaan suñu borom mu barkeelal leen. di ñaan suñu borom itam ci tew tawfeexam ak ndimbalam ak yërmandeem mu gën cee ubbi boppi taalibe yu bare bare bare bare bañ gën koo xam gën koo joxaat yitte ndax Serigne Touba kat jox na ko yitte joo xam ne boo doon wax ne jéggi na dayoo da nga naan jéggi na dayoo Serigne bi jox na ko yitte ju kawe kawe kawe kawe gis nañ Serigne bi la mu wax uktub li man axada wirdi yaa karim mustaxmalin bihi sawaban laa yarim képp koy jëfandikoo taloo ko jiitu yaa rabbi jaalil muridina maa fii xisnikal xasini wa shamlaj maa yow sunu borom murid yëpp yàlla nga leen def ci si biir tatay bopp ji nga xam ne tata ju sangewu la ju kaaraangewu la joo xam ne dara du mën a yegg ci ñoom te taqale leen boole leen def leen ñuy yenn daan ne te bindal defal tuyaaba ju du dog mukk mboolem ñi nga xam ne jël nañ sama wirdu wi te di ko jëfandikoo di ko sàmmonteeg sarte seen kam kon loolu yëpp day wax naan rek lu ñu war a joxaat yitte lu ñu war a sonne la ndax Serigne Touba jox na ko yitte lum réyal la itam biir mbind mi boo ci dee gëstu ngir di gëstu taxawaay bi mu am ci wérdu week fu mu toll ci moom da nga yëg ne rëyaay bi mu am ci moom lu lu lu kawe la man de wax dëgg gisaguma leen lu réyee ne moom ci maraaxil maanaam jaar-jaar yi ak dundam jaar jamono jooju Euh, ni mu toll ci moom gisaguma leen lu toll ci moom noonu ci biir mbindam loolu nag kon day wane ne ñun ñi nga xam ne ñoo askanoo ci moom di ko tuddoo war nañoo fexe ba xam lépp loo xam ne jox na ko yitte ju toll ñu taxaw ca suñ këm kàttan di ko jëfandikoo tey nag ma daaneel li ma daan wax rek mbooleem nitu yàlla ku fi mas a jaar yoroon tarixa boppam wirdam ay dongaam ña nga xam ne ñoom lañ jox moom lañ joxal seen digg ak seen borom jël nañ ko di ko jëfandikoo seen kam kattan ñun nag bu ñu yeggee ba Cheikhul Khadim suñu borom defal ko jagleeg boppam gi mu ko jagleel nga xam ne kenn musu ko am ñu bëgg a sàggane mbir mi day mel na kon seetaane xaw naa am ci ñu aw yoon te loolu kenn waru ko seetaan kon murid yëpp ak fu mën a ne góor ak jigéen mag ak ndaw nañ buur jëm ci jox ko yitte jéem ko wuti ca ña nga xam ne am nañ jëgal ci jëfandikoo ak joxe ko te di ko jëfandikoo te di ko sellal sàmm ay sartam ak i tegginam incha allah taala bu ñu ko defee. seenu ko aju ci sëriñ bi dana wér ba duñu am lu ñu laam-laamee te ku ca bëgg a dox ci yoon yàlla yi dox ca daan la yomb te amul benn sikk sàkk ci ne dox boo ca dox it da nga gis résultat yi tey da nga gis résultat yi ëllëg kon ñoo ngi tënk foofu suñu kàddu di ñaan suñu borom mu fekkeloo waat ñu koy at yu bare bare bari te mu ànd ak wér tal te suñu borom nangul ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به اكتب لمن أخذ وردي يا كريم